asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sunu mbokk internautes yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di amaat contentement ak mbégte bu rëy ci toogaat fii ci Xeewal TV ci seen émission islaam ak jamonoy tey ñu ngi nuyu sunu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di ñaan yan na jàmm yàgg senegal ñi nga xamante ne ni dañu génn àdduna yan na yàlla xare leen àjjana ñi nga xamante ne ni dañu tëdd ci lalu hôpitaux yi yan na yàlla fëgg seen bopp waaye ñun ñi nga xam ne ñoo fi desandi yan nañu yàlla may gudd fan ak wér ak xel mu sell bu ñu ko jaamoo comme ni ma leen ko waxee rek yéen seen biir émission islaam ak jamonoy tey tey ñuy waxtaanee thème bu ama am solo muy tarbiya ndax yar dafa doon loo xamante ne ni lu ama am solo la ma ci dalal nag sama mag bu baax sama benn magu daara Mame Tidiane Kébé Mame Tidiane maa ngi lay nuyu di la ziar. su feetu mag lay fay bu baax. Mhm. salaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di la nuyu émission bu am solo bi. di nuyu tamit euh, waa Xewal TV yëpp. Mm-hmm. di leen ziar di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk daraja yi di nuyu suñu sëriñ yi xalif généraux yi ak mm-hmm. kilifa diina yëpp. di jiital di ñaanal tamit euh, njiitum réew mi. Mm-hmm. Euh, li nga xam ni moo dal Sénégal dal àdduna bi yëpp. xeex bi nga xam ne ñëpp a nga koy taxaw yàlla yàlla defal ñu ci ndam. feebar bi dellu ginnaaw. ñi mu dal ñëpp wér. Mm-hmm. réew mi delluwaat si jàmm ak salaam mu bañ a am benn impact ci wàllu économie. Mm-hmm. ak suñu dund dund. Mm-hmm. di la ndokkeel aussi itam bu baax si émission bi. macha allah comme ni ko maam tiijaan waxee rek feebar bi nga xam ne dugg si na wër àdduna yépp ñu ngi ñaan suñu borom yan nañu ko yàlla teggil ci jëb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu doon waxtaanee tarbiya maam Tidiane fan yii yépp ñu ngi ci nekkoon di développer euh, yan élément ñoo war a yar. waaw dafa am lu ñu tuddee ju manahiju tarbawiya comme li ma question bu am solo la maanaam yar mhm. am ay éléments yar comme li ma waxoon keroog rek du question dóor sa doom mhm. wala coow wala di ko di ko di ko di ko di ko gëdd ak yu mel noonu mhm. yar dafa am ay partie xam nga waxoon naa la keroog ni la xale bi ñuy yar sax bu dee si langue arab dafa am ñetti tur yu ñu koy woowee am na ak tifl am na al waladu am na al ibnu déjà al waladu bi passé émission passé waxoon nañu ci wàllu linguiste arab xam nga nan la baatu waladu di firi mm-hmm. ak waladu boobu xale boobu boo jëlee mot bi mm-hmm. bu doon ci mathématique la ñu nekk nu ngay defee anagramme ba indiwaat jël baat bi changé waat ko ba waladu nekk firi dilwun wala dalwun bi mm-hmm. firi baak wala wala siwo nga wax loolu ban njëriñ lay am ci société bi tey nag pour élément yi nga wax dañuy jëlaat baatu xale amaat beneen tur ci langue arabe parce gis nga langue arab soo dafa riche moo gën a riche ci yi loolu moo tax yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu xam nga leader bu ñu wax alxaid leader warul bari wax donc il faut motax yàlla jël langue arabe nga xamni langue la bo xamanteni bat bu ndaw mën nga wax boo yobbo ci si bi yeneen langue yi mu danaka mu signifier phrase lum donc lolu mën nañ ci indi exemple mais comme émission bi du walu langue arabe dañuy junj non mais bu ñu jëlee baatu xale nga xamni muy firi al ibn ibn moy xale bi al ibn moy xale Eh, ñetti ñetti lettre ñoo ko composé si langue ñetti xaraf mm-hmm. ñetti xuruf salaasatu xurufin mm-hmm. alif ba ak nuun mm-hmm. ñetti yooyu ñetti lettre yooyu lañu la ñuy collé muy firi ibn mais bu ñu bu ñu defee anagramme tax taxkiis si balaawa si rhétorique arabe suñu suñu tourné suñu tourné baat boobu euh, jël baat bu njëkk bu mujj bi indi ko ci kanam wala ñu mel noonu daf lay jox euh, bina bina xam nga da mhm. nga jël ibnu nga jël baa bi mhm. bi ci digg bi indi ko ci kanam jël nuun bi nekkoon ci fin bi indi ko ci mhm. digg bi jël alif bi nekkoon ci kanam yóbbu ko ci fin bi muy bina mu jox la bina wala mabna xam nga mabna lu muy firi muy ah, immeuble xam nga immeuble le fait que immeuble bi taxaw ba li ci war a nekk yëpp nekk ci après bi maçon bi ñëwee tabax ko defar ko ba mu taxaw euh, pentre bi dina ñëw Mm-hmm. électricien bi dina ñëw mm-hmm. plombier bi dina ñëw mm-hmm. menuisier bi dina ñëw menuisier bois bi dina ñëw menuisier métallique bi dina ñëw décorateur bi dina ñëw def décoration ba mu ba mu yemb ba tey jii ben entreprise wala ben cabinet ñëw mën fa am ben appartement bu mu wala loué wala nit ki bëgg fa am appartement mu cher immeuble bobu avant muy nekk immeuble ba taxaw architecte bi ak borom dañ ci jël temps amul benn immeuble loo nekk nekk milliardaire mhm. même chef d'état sax su bëggoon tabax immeuble mhm. du xëy weer wi di ñëw at mi sax du ko du ko du mhm. sotti faaw ñu defar maquette bi bi ñëw jàng terrain bi def fondement bi fondation bi di ko defar ba mu taxaw kon daa xale bi pour nga yor pour nga yor ko faaw nga jël sa moo tax parents yu bëri amuñu temps boobu la loolu mooy waral li xew-xew muy crise mooy azmatu tarbiya bi am crise de l'éducation bi am loolu mooy mooy dafa laaj temps mooy waxoon naa la bi passé ne charia dafa wax ni mata tammat al wiladatu bada at at tarbiyatu munzu laxsatil ula min xayaatil walid bu xale bi juddoo rek foofu la tarbiya commencé waxoon na la rek yar xale bi da nga koy yar avant muy juddu dañ koy yar avant muy parce que xamu tax man la ma waxoon la ni la gis nga woy jigéen bi su ëmbee nekkee en état bu mu déglu loo xamante ni la tabarkaala la mhm. islam d'accord ci waxoon naa la liir yi sax léegi gis nga tey jii boo boo jëlee ba sa liir nga teg ko si si si si berceau bi mhm. wala si yuppalaa bi wala si lal bi mhm. bu benn générique émission commencé wala benn musique bu bu kii yee rek yaa ngi gis liir bi di di fecc day fecc parce loolu fecc la parce que xamul dara moment bi ko yaay ji ëmbee ni nga ko doon déglu te gis nga doomu aadama sofiyatu mhm. yàlla bu ko bu ko yàlla bindee nit ki ci wàllu science nit ki bu ko yàlla bindee mhm. li lii njëkk a fonctionné ci moom mhm. mooy dégg buy waaj buy dem bay bay waaj a bay génn àdduna lii mujjee fonctionné ci moom muy dégg moo tax islaam ne la premier élément bi doom ji am mooy bu juddoo rek loolu moo tax way jur yi su doom bi juddoo rek ñu ñëw tëfli ci moom mu ñëw ñëw tëf li ci nopp yi mhm. loolu mooy wala loolu mooy secret wu ñu nodd ci nopp ndeyjoor bi mhm. li xaam si loxo nopp li si nopp càmmoñ bi nodd boobu li boobu dañ koy def sax jour ngénte li mhm. mais mag ñi dañ bu seen soxna muccee rek ñoom ci lañ ñëw njëkk koo def bi première fois xam nga tax pour xale bi njëkk a dégg baatu yàlla tawxiidu yàlla parce que bi ñu nekkee si alamul arwaax mooy euh, bi ñu nekkee ruux nekk ci aalamul arwaax mu mhm. alquran jàngal nañu ko mhm. ñun foofu ñun suñu ruux mhm. dafa amoon compli dafa amoon complice dafa amoon proximité ak yàlla ñun dañ doon wax ak yàlla comme man a yow ni ñuy waxee noonu suñuy ruux daf doon wax ak yàlla moo tax alquran ne alastu bi rabbikum yàlla ne ndax duma seen borom xaalu balee ruux yi suñuy ruux ñoo ne ko waaw léegi waaw boobu ñu nangu ko ne ko xaalu bala shahid na loolu alquran wax shahid na seede lañu yàlla yaay suñu borom léegi nag pour ñu ñëw nag seede boobu ci àdduna li ñu koy njëkk mandargal mooy suñu dégg motax ci premier jour il faut ñu nodd ci lopp nday jor bi ashhadu an la ilaha illallah sedena ni amul ben bur biñu wara war ko dul yàlla wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu da fay firnde seede biñu ñu won ci alamul arwah ni yàlla yow rek yaay suñu borom kon nga gis fofu non non lay njëkk dem kon kon noddu ci nopp nday jor bi li xam ci nopp càmmoñ bi lolu moom moy premier mbir tarbiya bi nga xam ne nit kii mhm. da ko war am ak doomam bu mu bàyyi ba jour gént bi mhm. mais ci bi doom ji njëkkee judd dama damay waxtaan ak suñu benn xarit boo xam ne man ak moom ñoo doon jàngandoo Maroc mhm. muy sëtu Cheikh al Islam Baye mu ne ñu Baye Niass Baye la moom Baye Niass euh, mu ne ma Baye Niass Cheikh al Islam du ñëpp xam nañ ko euh, Baye bi mu juddoo papaam mi ngi tuddoon maam Ablaye Niass maam dafa toog di jàngal benn xale bi xale bi di jàng ba xale bi jàng na ba ba tari alquran moom mhm. Abdoulaye Niass di téyeel xale bi pour mu tari alquran mhm. bi xale bi di tari di tari ba ba toll si si bi ne jinate woon naas yi fi muy mhm. fi muy fi muy fi muy jeexale ci la ci la ndaw li ñëw ne ko soxna as astu jànq am na doom ñu eh, ñu informé ni ko ni ko soxna am na doom mais xam nga du mu def dafa wax xale bi nga xam ne moo doon tari alquran ne ko yow tari nga alxuraan léegi nii baqara banaa si tari léegi nag bul waxaat bala ngay wax ak kenn li nga tari alxuraan li nga tari sama kanam mhm. dama nga tëfli ko sama sama sama ci ci ci ci gan gi mhm. xale bi tamit kon dafa dégg ñu ne dama nga tëfli ko ci gan gi mu ñëw xàq na ko def ko tëfli ko ci liir bi mhm. mais def na li ko sant donc gis nga loolu mooy wane ni premier mbir mi bàyyi na si dégg rek li njëkk a ëf ci moom mooy alxuraan moo tax gis nga yàlla may ko li nga xam ne may na ko

lan nga jox ko tur mm-hmm. masalan safiyatu mm-hmm. comme yow boo jëlee sa doom nga jox ko safiyatu mm-hmm. xam nga tey xale yi Sénégal yu baari yi tudd safiyatu wala laajee lu safiyatu lu mu signifié dañ naan ah man daal safiyatu laa lu mu signifié te normalement ku nekk war nga xam sa tur lu mu signifié bu dee turu olof la nga xam amul signification war nga xam sa turandoo mooy kan bañ tuddee ko doom safiya mais safiyatu mooy <laughs> safiyatu mooy firi mooy firi pur mooy lu sell sa safiyatu mhm. mooy loo xamante ni dafa dafa mooy taahira mooy lu làpp loo xamante ni amul leen amul benn amul amul benn tâche mhm. safiyatu mhm. pure wala sa doom boo ko tuddee safiyatu ba dama ko firil luy sa safiyatu mu nekk pure la pureté nga wax ko lan mooy pureté ba mu nekk jigéen boo xam ne day day day day sellal boppam dara du ko tâchal masala nga bu dee jigéen nga tuddee ko roqaya xam nga ñu fi ne roqaya nga tudd roqaya am na sax ni muy demee nga gis la si Facebook koo xam mu tudd mu tudd roqaya mu mu ne bind rokina rokina te roqaya la tudd mais roqaya war na xam lan moo firi roqaya roqaya baatu arab la muy firi mooy ar ruqiyatu arab ruqiyatu la ruqiyatu mooy firi yëkkatiku élévation sa doom nag war nga koo jàngal élévation mooy lan ba nga élévation intellectuelle yëkkatiku ci wàllu xel ba bu màggee mu jàng élévation spirituelle yëkkatiku ci wàllu ruux ba mu nekk jigéen bu sell élévation morale yëkkatiku ci wàllu jikko ba mu nekk jigéen bu am jikko yooyu da nga koy jàngal mm-hmm. tour dafa am projet dafa am solo dafa am solo ci dund moo tax way jur wu ñu nekk war na sa doom nga mm-hmm. firil ko sa tur mm-hmm. al amin muhammadul amin wax ma turu muhammad ma dakkantalu al amin bi amaana nga fexe ba xale bu nekk ku wóor ba bu ëllëgee su su nekkee chef d'état wala mu nekk ministre wala directeur société. wala lu mu mën a dénk lu ñu ko mën a dénk ci ci askan wi. du jaawale gafaga réew mi ak gafaga boppam maanaam du jaawale poche réew mi ak poche am parce que mhm. amin la tudd. Mhm. dañ koy wax lan mooy amin. mooy koo xamante ni ñakk moo ko gënal muy lekk mhm. alalu jàmbur. donc tur dafa am solo ci dund. nga ki ko tuddee nga tuddee ko soit sa sëriñ. wala sa maam. mais nga wax ko ne ko kiñ la tuddee de. sa tur lii la mhm. waaye kiñ la tuddee nii la meloon lii la def ci jaloore yu mhm. baax mhm. xale bi loolu day nekk feuille de route am tamit tarbiya boobu dafa am solo bu ñu jàllee si tarbiya ci ism xale bi bu bu demee bay dëgër diggante bi am na beneen xeetu tarbiya bu ñu ko war a def mais ak tarbiyatu fil akli mm. gis nga islaam mm-hmm. dafa wax ni xale dañ ko war a topp ba ci ni muy lekkee da nga koy yar ci lekk mm-hmm. moo taxoon bu njëkk bi mag ñi bu ñu daan yar dañ daan yar moo tax bu njëkkoon dañ daan def euh, bool bi bool bi mm-hmm. papa ji da daan toog bàjjan daf daan toog xam nga loolu moo waral famille bu njëkkoon ci sociologie dañuy wax ne famille dafa amuñu tuddoon famille élargie mooy bu njëkkoon famille bi papa day toog bàjjan toog maam toog umpaañ toog mhm. ñun ñëpp kenn ku ci nekk am nga am nga am kenn ku ci nekk sa doom kii do sa doomu càmmiñ mhm. wala sa doomu sœur mhm. kenn ku ci am nga ci wàll yaay yow man maay yar man maa yar sama doomu sœur mm-hmm. sama sœur moom laay jox sama doom parce que mm-hmm. sama sœur man nag moom ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk baay mm-hmm. donc ñoo bokk nu ñu yaree damay jël sama doom jox ko ko muy bàjjan bi moom mu jël doomam jox ko nijaayam léegi nag ci biir kër gi bu ñu toogaan ci bool bi bool bi nag bool bi xanaa xamoon ne bool bi mag ñi bu taxawal ñu teg bool bi di ci yar noonu bool bi boolu boolu bi te dañ ci yar nit xam nga bu xam nga léegi da gis ni nga waa kër gi léegi li xew xam nga waxoon naa la famille élargie la mm-hmm. mais léegi famille yi am famille nucléaire la mm-hmm. papa yaay doom papa yaay doom rek mm-hmm. moo am léegi nag ci biir famille bi bool bi parce que boo dee jàng euh, l' enfant noir bu Camara Laye gis nga Camara dafa daan wax ni moom da daan seetlu heure añ ak reer parents bi dañ ko daan wax ni ko bul génn kaay na la fekk ci kër gi dañ koy wax dañ ko daa wax sax ni ko heure yooyu boo fa génnee jinne da lay mbéj yu mel noonu euh, am na benn professeur bu ñuy wax professeur Djibi Diakhaté mhm. sociologie bëri na lu muy wax lu mel noonu mhm. loolu li mu ci jublu xam nga mooy dal mhm. gis nga bool bi bu ñu ñëwee teg teg boolu añ bi wala boolu reer bi ñu ne xale bu ndaw bi da ngay sukk nga téye ndab li di lekk sa kanam doo laal digg ndab li xam nga loolu lu ñu ci jublu léegi de amatul amatul moo tax li xew ci réew mi am xam nga loolu lu ci mag ñu jublu woon maanaam bool bi mooy société bi mooy pénc mi bi ñu mhm, bokk. Mhm. Euh, ndawal li. Mhm. mooy bien commun mooy li mooy alalu askan wi. xale yi. xale yi mooy signifier population bi ñun population bi. mag ñi. ñoom ñooy signifier état bi ñu yor ñu yor wàllu ñi nga xam ne ñun ñoo leen fal. pour ñu yor su doxaloon suñu réew. léegi ñu ne xale bi da ngay jàpp ndab li. mooy ndaw pénc moo gis mu am stabilité. am am am dal am mhm. istixraar mhm. mooy xale yi ñoo yaru xale yi ñoo ko téye réew mu xale yi yaru rek mhm. réew moom du yëngu waaye réew bu ñu yarul xale yi lu neex waaye wax lu neex waaye def sëñ Mansour doon na ko wax ci vidéo yi ñu si lu neex waaye wax lu neex waaye def lu neex waaye dal ko rek loolu mooy pénc kon dañ koy jàpp dañuy jàpp ndab li bu ñu jàppee si ndab li nga lekk sa kanam mag ñi ñoom ñooy dagg ci ndawal li tegal xale yi loolu li muy jàngale mooy mag ñi mag ñi mooy mooy état bi bu ñu mm. daggee mm. ci bien ko bi dañ tegal population bi Mm-hmm. waaye bu ñu dagg di ko lekk léegi nag gis nga bu ñu toogee ci ndab tey ji mm-hmm. mag ñi di dagg ci ndawal di lekk bu yàggee xale yi jiiroo mu ngi noonu loolu laay wax que ni ah, ah. léegi bëri na mag ñoo xam ne sax ñoom seen bopp ñu baal ci kàddu bi yaruwuñ maanaam seen toogin seen doxalin mënuñu yar xale boobu parce que ñoom seen éducation rek baaxul moom laa moom mm-hmm. moom laa lay wax keroog ci émission bi ne am na parents yoo xam leen ñu ne xamuñ ñu xam leen séminaire ci ci soit ci jàkka ji wala ci benn ci mairie bi pour jàngal parents yi naka la ñuy naka la ñuy naka la ñuy yare mhm. parce que yar nekkul rek ni danga dem ba am sa mhm. kër noonu yar dañ koy jàng mhm. donc kon bu ñu jógee ci yar boobu mu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn sahaaba yi dafa wax ni dama toog di lekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ma ni ñuy lekkee mu ne ma yaa gulaamu sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika mu ne sa doom yow xale bi booy lekk sammillaha d'abord tuddal yàlla ñun moom dañuy lekk bon dañuy ñëw teg plat bi ñëpp ñu bon appétit. merci merci aywa ngeen lekk. <laughs> loolu bu lu lor amee ci kii bi rek. baax bàyyi bisimilah rahmaani rahim njëkk wax bisimilah ba pare. Mhm. soog wax bon appétit. dëgg la xam nga. Mhm. da ngay lekk da ngay wax tudd yàlla parce que boo tuddee yàlla. Mhm. ñam woowu lu ci nekk ci lor. du la gaañ parce que yàlla nga njëkk a tudd. dëgg la mu ne sàmmil la. wa kul bi yaminika na nga lekk sa ndeyjoor. parce que lekk ndeyjoor mhm. dafa am solo mhm. xanaa xamoon ne kii lekk kii kii lekk képp kuy lekk càmmoñ wala mu koy naane moment bi muy lekkee mhm. wala moment bi muy naane ku ko liggéey jàpp ko <laughs> ku ko liggéey jàpp ko mais booy lekkee ndeyjoor wala nga koy naane ku la liggéey foofu du jàpp du jàpp mooy mooy mooy wane tam nit ku am njàpp nit ki nga xam ne à chaque fois mi ngi takkoo ak njàpp wala ku la liggéey du du jàpp takkoog mm. jàpp jàpp moom warul julli warul la boole ak mm, donc loolu entre parenthèse loolu mm-hmm. euh, ñu ñu kon xale bi lekk ndeyjoor mu ne mm-hmm. ko kul bi yam yi ni mm-hmm. na nga lekk sa ndeyjoor ba pare tamit wa kul mimma yalika lekkal li nekk sa kanam na nga lekk sa kanam bu pare nga bàyyi foofu jug dem mais ñun dañuy dem dans les restaurants ñu tegal ñu fourchette ak paaka ñu jël fourchette bi def di lekk ci amoon affaire yu mel fekk loolu du du éducation loolu baaxul loolu baaxul kon doom dañ koy yar ci wàllu nu muy lekkee seen benn maam Cheikh Hadji Mariam dafa mosoon am benn gan mhm. bi mu ñëwee gan gi day lekk di tuur rek mag la de pourtant mag la mais dafa ñëw di tuur mhm. ba xale yi ñu ci daara ji xale yi ko boole loon mhm. dem dem boole daan ni gan gi day tuur ndax ni muy tuuree dafa ñaaw dafa ñaaw xam kon xale yooyu yar nañ leen ba tuuruñu gan gi waaye bi ko maam Maodo yéegee radiyallaahu anhu dafa pour pour mu dafa woo gan gi ne ko dégg naa de xale yi am na bu ñuy lekk am na ñoo xam ne dañuy tuur waaye am yat bi <laughs> parce que boo demee xale bu tuur duma ko bi mu ñëwee toog gis nga ni ñuy yare maanaam yar dañ koy mën waaye fi ngay woo gan ma ne élément yi élément ngi noonu moo tax ci yi lañ nekk ni mm-hmm. bu doon man la dama ñëw naan ko yow dégg naa da ngay tuur mm-hmm. affaire yi moom bu xëy suba gàddu ba mm-hmm. dem jibbi voilà la nga bëggoon def si moom wala la mu doon soxla ci yow doo ko def léegi nag bi mu ko joxee yat bi ne ko xale bu tuur rek du mal mu ñëw gis xale yi di lekk kenn tuurul. Mhm. te moom it du tuur parce que jox nañ ko fonction. waaye moom mooy mu lekk tuurul tuurul. Mhm. def ko ñaari fan. Mhm. ñetteel fan mu gàddi yat bi ñëw ci maam moo doon ne ko yat baa ngi nii am dóor naa ci sama bopp. yar naa ci sama bopp kon gis nga. <laughs> donc uh-huh. xale yi dañu leen war léegi dañuy gis xale yi ñu toog fii mag ñi jël xale yi jox leen benn bool ñu nekk fa di kësën kësën ci bool bi yàq foofu tuur ko. affaire yu mel noonu loolu baaxul ci xale dañ koy yar ci loolu. mooy at tarbiyatu ci wàllu fil akli dañ koy yar tamit ci wàllu wax élément bi tamit sa doom da ngay fexe mu yar ko ci wàllu wax uh-huh. mooy da ngay fexe ba xale bi première kàddu yi muy yi njëkk yi njëkk a génn ci moom uh-huh. mu ne kàddu yu rafet uh-huh. bu dee ci suñu pencu olof yi nga fexe mu njëkk a papa yaay bàjjan umpaañ gis nga xàmmee yooyu dafa am solo gis nga tubaab yi ñu ngi ndax nax ci loolu léegi ñu man sama rakk papa ak sama rakk yaay yëpp sama nonk laa wax te te te nijaay ak nijaay ak bàyyi tax ku ci nekk am na fonction boo jaaxlee da ngay sama nijaay mhm. sama nijaay da laa su ma bëggee takk soxna sama papa bu fi nekk ma seeti sama rakk sama rakk papa mhm. yooyu yooyu noonu dafa amoon ay ay ay ay jeexital yu naan def ci penc mi mhm. yaa ngi muy dégg donc kon nga ñu yar xale bi si anamu euh, mu xam mu wax kàddu yu rafet ci biir kër gi waaye léegi xoolal Sofiatou élément wu yar yi mhm. boo xam ne dañ charia daf ko jàngale ñu wax alxudwatul xasana mhm. gis nga sa doom mën nga koo yar te doo wax ak moom sax yow sa comportement lay xool boo ko xoolee xam li nga ko wax donc xool bu gisee papa ji yaru mhm. papa ji dal papa ji am caractère mais dal am yërmande xale boobu day day day bu màggee noonu lay mel mais papa joo xam ne bu xëyee bu ñëwee yuuxu ah, yaay ji mais loolu c'est pas loolu baaxul xale boobu xale boobu violence yi xew ci penc bi loolu la dafa am mm-hmm. violence yoo xam ne violence ñett la mm-hmm. dafa am violence symbolique mm-hmm. am violence verbale am violence physique violence physique mooy li xew léegi nga gis nit rey nit affaire yu mel am am na ci violence yu mu njëkk a jaar ba pare yooyu yëpp ci élément wu yar la mooy li xew léegi li xew xew léegi waxoon naa la bi passé na la penc baat yi nga xam ni moom la waa penc ma di faral di wax day baat yooyu day mujju soppeeku nekk jëm te loolu ñun ñëpp bàyyiwuñ ko xel mhm, dañ koo war a bàyyi xel yaa koy daggate mhm. moo waral ñuy rey ñuy rey nit ñu dagg daggate la mais dëgg la maa ngi dem léegi chauffeur da ngay sañse wax naa ko passé mhm. da ngay dem maa ngi dem xew ñaaña ba damay defante ji yow ñu invité la xew ngay defante ji maa ngi xëppante ji acide moo war a moo war gis jigéen mu jël jëkkëram parce que tàmm bi gi mu ko tàmm wax jëkkër ji day takk jabaram mu dee jël acide xëpp ko mu dee moom mu dem ci kaso bi dundam yàqu donc ay kàddu la yoo xamante ni dañ koy ñu ngi koy wax bàyyiwuñ ko xel mais ñu ngi koy pratiquer. ñu ngi koy pratiquer koy pratiquer mu dem a dem ba lëmbee société bi loolu xeetu la ci tarbiya mm-hmm, mm-hmm. ñu xoolal ñëw ci biir kër gi da gis xale xale boo xam ne papa ji su meree dagg saaga mm-hmm. yaay ji dagg jànq bi dagg rakam magam dagg gis nga dagg dagg dagg dagg yooyu ma war a xale bu ndaw boo xam te ne xale gis xale bu ndaw génn wax kàddu boo xam te aduna day day tuk mm-hmm. dafa am benn xale boo xamante ne dafa dugg ci boutique bi yor ben affaire bu koy gañ mm-hmm. ben nit ñoo xamni li bu xalé bi di foy. Mm-hmm. su ko bàyyee mën na koo gaañ moom dagg loxoom bu naxante mo ba nangu xalé bi nako ma ngay nangu sama yef baye na la ak yalla dem xam nga xalé bobu dañ ko jangal jàngaluñ ko wax ju ñaw Baye na la ak yalla moy nit ku bu la toñe baye ko ak yalla waye bu doon xale léegi ni fi bula saga man musna naa xalé bo xam dafa bamu saga kaddu ko man dama muju taxaw gesso ndax li xalé ko xoolal sama grand frère bi maam góor bi mu newee xale bu ñu ko daan doon naan bàyyi naa leen ak yàlla. waaw mi ngi noonu bàyyi naa leen ak yàlla kon tarbiya. Uh-huh. foofu élément la foofu boo xamante ni mag ñi dañ ci daan yar seen doom. dëgg la euh, parce que parti bu nekk rek. Uh-huh. xale bi am na lu mu fay jël. Uh-huh. xam nga waxuma la sax gis nga gis nga sax am na lu ñu lu ñu dañ delluwaat ginnaaw mooy gis nga. xale bi jour bi mi gën aduna sage femme wala matron bi rew la yaayam dafa wara nek ko xamanteni gis nga tay suñu sage femme yi suñu dañuy dem ci école formation ñu jàngale ñu génn mais waro ñu am ay cours moral ba ñu nek ay jigéen yu pure parce que xam nga tax xale moment bobu loxo bi bu ñëk a day am xam nga virus bi ñuy wax légui da fay contaminer mais fofu tamit amna lo xamanteni xale da koy jël ci mom moo taxoon bu njëkkoon mag ñi. Mhm. bu njëkkoon ci suñu penc. Mhm. société traditionnelle bi ñu amoon ñaar ñii ci kër ñaar ñi mhm. ñu ñu ñu amoon daraja lañ leen dañ leen leen dañ leen daan sax yóbbu si martaba taqdis yi maanaam dañ leen daan honoré dañ leen daan màggal. ñaar ñu ñaar ñi société da leen daan fonk. mooy sage femme mooy ki daan réewle. ak kii sang néew. ñaar ñooñu ci penc nekk woon n'importe qui moo koy doon. parce que jour boobu. jour bi xale bi du judd buy génn ci biir yaayam am na ay valeurs yu mu jëlaale ci yaayam génn ko mhm. waaye ñi ki koy teeru ñu koy raxas ñoom ñëpp ñu koy sang ñu koy toppatoo ñoom ñëpp am na lu muy jël ci ñoom parce que mhm. moment boobu xale bi dafa nekk islam jàngale na lépp oh, moo tax gis nga yonent bi sallallahu alayhi mhm. jukko yi mu am yëpp bokk ne da koo jëlee ci yaayam. Mhm. ak ci étape yooyu maanaam matron bi koy bi ko bi ko bi ko bi ko yar. Mm, boo demee ci xilaasu zahab Cheikh Alhaji Malick bi muy jàngal ñi rawal ñi maanaam yonentu islam bi mu gën a àdduna dafa wax ni. Mhm. maanaam ci étape yi mu jaar bi mu juddoo bi mu juddoo bi mu gën a àdduna sallallahu alayhi wasallam mhm. ba ñu koy toppatoo yu yëpp. ci jigéen ñii la jaar jigéen bu ci nekk xool sa tur. moom xam nga nu dafa fekk sa tur. mu jël mu jël jukko boobu jukko boobu mu ne am nun shifaun sawaabun summa may mënatun xilmun wa saadun li baddarin na yi am nun mu ne am nun amina mooy yaayam yonent bi saa bi muy génn àdduna am nun am na am na jigéen tudd amina xamuñu amina lu muy firi am nun mooy ku wóor mm-hmm. yonent bi nekk ku wóor mm-hmm. ba bi mu màggee société bi ñëpp wóolu ko yàlla bi muy tànn moom la wóolu mm-hmm. am nun matron bi ki ki nga xam ne moo nekkoon sage femme bi yaayu abdourahman ibnu awf la benn sax abdourahman doom ci saxaaba la ñu ngi tuddoon Shifa shifa xam nga lu muy signifié mhm. mooy firi kii kii faj kii saafaralaate mhm. kii faj shifa ba arab xam nga léeg nga feebar ñëw na la yàlla yàlla defal shifa shifa mhm. mooy wér yonent matron boobu shifa dafa jël jikkoom mooy tur bi shifa moo tax yonent saa dafa daan saafaraate da daan ñaar saafara nag faj ñaar na tuddee maanawiya ak xisiya xisiya mooy moom mooy ki nga xam ne dafa feebar feebaru iñaan feebaru bon feebaru rëy fa feebaru biir yooyu yonent bi saa daf ko doon faj mhm. feebaru biti mooy feebar yi nga xam ne médecin nga ko doon faj mhm. yonent bi daf ko doon faj am nañu ci fa mhm. sawaabul sawaab tam ci ci sa famille la bokkoon mooy firi yool mooy kuy def lu baax maanaam bu defee lu baax ñu fay la mm-hmm. may mën a tun ci la bokkoon jigéen bi wax may mun a mm-hmm. may mun a jigéen bu tudd may mun a dañ ko wax may mun a mooy mm-hmm. mooy barke moo tax yonent bi ko amoon barke xel mun wa saadun alimatu saadiya xel mun mooy firi ku lewet saadu mooy ku firi ku texe xool tur yooyu yëpp yonent bi saam jël jikko yooyu yëpp dajale wax yar ay élément la du du bàyyi ba xale bi dëgër nga dóor wala ngay ngay ngay wax macha allah am na solo maam Tidiane waaye lan nga ñu mën a wax ci way jur bi sàmmoonteek ay doomam parce que comme euh, suñu boroom dafa wax ni ëllëg yow mal xiyaam dinaa laaj way jur yi naka ngeen sàmmante woon nag ak say njaboot te léegi da gis parents yi bari naan njaboot gi njabootu kanaara la ñoom kay dañuy jiitu ñun ñu topp seen ginnaaw lan nga ñëw mën a wax foofu noonu. waaw mhm. loolu loolu nag mooy responsabilité bu rëy la bu sax jur première responsabilité bi mu am mooy responsabilité bi ñu ko jox doomam. Mhm. waxoon naa la fi yonent bi saa ne na kullu mawludin mhm. yuladu ala ala fitratin salima summa abawaahu aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku judd mhm. yaa ngi juddu nekk feuille vierge kaasu verre bu rafet la mhm. léegi nag xale boobu yàlla dafa compter ci moom yàlla dafa dafay compter ci xale boobu ngir mu mën a nekk représentant am ci kaw suuf ndax yàlla dañuy inni jaailun fil ardi xalifatan dama bëgg a établir représentant ci biir suuf représentant boobu la nag fa muy jaar ba ñëw fa kooku ci waajur la xam nga société société bi ñu ne maanaam àdduna. Mhm. bu doon société la ñun góor ay fonctionnaire lañ ci biir. societé bi mais jigéen nag moom actionnaire la. Mhm. xam nga actionnaire ak fonctionnaire bokkul. fonctionnaire maanaam télévision bi. Mhm. bii ñu nekk xéwal TV. am na koo xam ne fonctionnaire la fi. day ñëw liggéey bu weer wi dee ñu fay ko. actionnaire am na koo xam te ni xaalisam ñu ci biir. moom bu weer wi deewee moom lay génne ci xaalis bi. dañ koy xaaj moom mu am ci wàllam. ñaaj nañ ko ëpp doole actionnaire moo ëpp doole fonctionnaire jigéen actionnaire la ci àdduna bi. moo tax yàlla yar ci moom la ko njëkk jaarale mhm. dañ naan góor jigéen mais yar moom parent bi ci parent la ko yàlla mhm. jaarale parent bi gën a baax nag moom la moom moom la jeexitalam di ëpp waaye ci jigéen nag lañ ko gën a séntu parce que mhm. moom moo gën a am accroche ak doomam loolu moo waral parent da war a am ak sa sa sa doom benn complicité waaw dañu wax ne tarbiya dafa am ay wasaif éducation dafa am ay fonction am na wasifatu tarbawiya am wazifatu xibaar yi. di yar mais diko diko di ko informer di wax. moy li dafa melni parents dañuy am complexe ak waxtan sen domi yi. moy conflit de génération. moom la doon wax kéro ci muskila yi mooy muskilatul fajwati baynal walidi wal walad. moy moy moy moy moy écartement bu am digënté wayjur dom parce que wayjur da nga wara fexe xam nga suñuy yaay yi bu njëkkoon mhm. jànguñu école ba àgg mhm. ba àgg ci benn jànguñu sax école ci daara lañ ne ko wala ci kër gi mhm. mais ñooñu gënoon yeew gën ñoo gën ñoo parce que dañ leen dañ leen doon tàggat ci àdduna mais gis nga sa doom boo xoolee bu mu ëpp la capacité rek rey na la moo tax way jur sa doom lu mu jàng-jàng ak sa doom lu mu génn-génn war nga fexe ba lu mu def nga trouvé ko même bu ëpp bu la ëppee xam-xam lu mu def nga ko problème bu mu posé war nga koo trouvé moo tax parent warul am complexe xale bi di la indil dara que xale bi ci yow la jaar yaa ko yaa ko yaa ko taxawal taxawal ba mu toll fii mu toll donc da ngaa war a da war a imposer mhm. sa sa sa sa sa moomeel ci moom sa sa bàyyi ci moom wala sag mhm. yaay ci moom mhm. da ko ko war a wan léegi nag foofu nag la ñuy wax leadership bi nga am ci dafa am leadership parental xiyaada boobu la way jur yi da ko war a am bu ko échappé rek ëllëg daf koy layoo ak borom te d'abord avant muy layoo ak borom penc mi lay layool parce que xale boobu bu yàqoo penc mi lay yàq moo tax parent war na fexe ba dom ji âge bu mu mënti am. doomam daf koy daf koy bàyyi xel du ko ragal mais daf koy daf koy bàyyi xel da koy rouss néna di bàyyi xel ay waxam. lool nak d'abord ci ay ay ay comportement la. motax mag ñi bu njëkkoon bu ñu naan yar seen doom dañu dañu naan yar ci dañu naan def atarbetu fi xisas wal hakaya lool day tax xale bi yew day tax xale bi xam bu ëllëgé fu mu mënti dem ci aduna dina xam ba xam dafa wara dëng wala dafa wara a jub. parce que amna na ci suñu ma jox la ci benn misal xamna ni waxtu waaw xam naa ne ñu ngi may signaler sax ni waxtu bi léegi mu jot. ah léegi mu jot nga tënk rek. waaw ñu tënk ñu tënk loolu rek. Mm-hmm. ñu tënk tarbiya boobu maanaam gis nga mag ñi. Mm-hmm. bu njëkkoon dañ naan woo seen doom mm-hmm. dafa am lu doon sous l'arbre à palabres bu njëkkoon bu guddiwaan bu ñu jàngee suñuy leçon pare dañ naan toog ci ci taatu garab gi suñu maam wala suñuy yaay toog di ñu wax wala nga xëy war a jàngi wala nga xëy naan café sa néeg yaay mu di la wax histoire dara histoire yooyu na nga xam ne moo amoon moo tax a am jom mooy tax nga xam sa bopp mhm. mooy tax lu dëkk bi jaxasoo jaxasoo mhm. du am dafa am benn góor boo xam ne da yar doom ji dafa dafa wax doom ji ne ko doom doom ji da doon dem daara mhm. bi matee dem daara xam nga yooyu mag ñi bi ñu ko daan nittali seen i doom pour xale bi am yu bëri yu mu bàyyi xel comme histoire bi nga xam ne dafa bokkoon ci histoire yi mag ñi daan nittali bi bi xale bi dem daara dañ ko doom boo demee daara na nga respecté sa sëriñu daara lu mu la sant defal noonte sax sa bakkan da ciy des defal ndax sa mooy sa sëriñ bi mooy bul bul bul bul bul romb dëkk sa sa mbokk nekk fa nga nga nga nga jéggi ko bu dëkk boo romb te sa mbokk nekk fa rek na nga fa jaar. Mm. papa ji bi loolu dénk doom mm. ñetteelu mooy bul geddi cin. Mm. geddi cin mooy foo ñëw rek fekk añ jot rek bu ñu leen kaay añ rek wala kaay reer bul bul bul kii bul am complexe toogal nga lekk ne ko lii rek laa lay yabee dama nga jàngi mm-hmm. xale bi bi mu ñëwee ci daara ji di jàng lu ko sëñ bi sant mu def ko ba mu xale bi mokkal alxuraan mm-hmm. bi mu mokkalee alxuraan buur ba ci buuru dëkk ba mhm. daal di daal di dem ci sëriñ sëriñ xoolal ko ne ko sa sa sa nguur pour mu gën a dëgër mhm. pour nga bañ a daanu mhm. mooy il faut il nga jël bopp kàng mooy ku ma ko alxaan bopp bi nga suul ko léegi nag buur bi dem ci sëriñu daara boobu daal di neexal daal di neexal sëriñ bi ne ko sa sa ndongo loolu wax xale bi ne ko moom laa soxla bopp bi sëriñu daara bi tamit melul ni mu war a mel mu daal di sacrifier xale bi léegi nag buur bi dafa tëral moom benn deal lu ñuy wax plan ne ko léegi da ngay yebal xale bi mhm. soo ko yebalee mhm. ne ko dama la yónni ci buur boo demee nga ni boo demee rek ni ko maa la yónni léegi mu ne buur bi ne ko su xale bi ñëwee dina xam ne moom la su defee bu ñëwee damay dagg bopp bi mhm. su ma daggee bopp bi fas bi dina dellu ma bàyyi fas bi bu fas bi delloo léegi xale bu ñëwee yow sëriñ bi yéegal ci ko fas bi boo yéegee ci kaw fas bi yaa ngi may dégg nga ñëw boo ñëwee ma jox la maletu maletu xaalis sëriñ bi daal di d'accord daal di xale bi kaay ma yónni la ci dëkk buur bi ni ko boo demee ci buur ni ko maa la yónni mhm. te boobu ay ay deux heures du matin jot na dëkk bi lëndëm mhm. ni ko yégal ci fas bi xale bi daal di ne damay bañ ne sëriñ bi ay doomam a ngi nelaw mhm. ñëpp a ngi nelaw ay jarbaatam fi yónniwu leen ci guddi gi mu dem mu di ma yónni mu ne kon xam nga naa bañ ba ci yàgg xel mi dem ci papa ji ne ko loolu sa sëriñ santoon na ko oh. def mu daal di kon xaaral mu ñu daal di jug yéeg ci fas bi dem bi muy dem ba ci yoon yi mu romb benn dëkk dëkk ba mu gis làmp mu xool dëkk bi ndekete dëkk bi bàjjanam fa la dëkk mm. fi badjan bi fi la dekk mune ne sama papa ne newon na ma bu rombu dekk sama bokku nek fa kon xaarama jaar ci dekk bi noonu te lu mu gatt gatt la ma ma nuyu sama badjan mhm. so ko continuer dem ci ci bour bi mhm. bi mu wacce ci buntu keur badjan mu jël euh, fas bi yew ko ci ben euk dugg nuyu badjan bay genn badjan bi ne man dama damaa guddee reer tey damaa mhm. génnoon kay reer mune ne man sama serigne daf maa yónni waaye fàtte ni papa newon nako bul bul gàntu cin la yu tok bi mu toge ni ke fas wa fas wa ma ngay bañantu mm. di bañantu ba buum nga dag te fas fu mu min rek bu buum ko daggee day dellu foofu. bi mu gi daggee fas bi dellu ci kër sëriñ ba. Mm-hmm. xale bi tok ci kër bàjjan bi reer pare génn gisul fas bi gisuko mm-hmm. ko. mu wër ba mané ko na ne ci suñu kër. Mm-hmm. xol ci kër daara ja wax sama sëriñ ne ko fas bi ni dafa rëcc. ndekete fas bi bom jitu na xale bi ci kër gi bi fas bi ñëwee. sëriñ bi yaakaar ni xale bi mom dem na bañ dag bopp bi sëriñ bi yek ci fas bi pour dem jëli malade bi. te buur bi da buur bi newoon na leen am na fas wu weex buy ñëw bu ñu ñëwee ka ca toog rey leen ko sëriñu daara bi yëg ñëw ba ci kii bi rek gars yi xooluñu ba xam moom la ñu ñëw rek gaa yi dagg bopp bi rek daa di suul mm-hmm. daa di suul jëmm ja suul jox jox bopp bi buur mm-hmm. fas wi delluwaat loolu de mooy yéene néeg la borom ba tey bi fas wi di dellu mm-hmm. ba egsi ci kër gi tombeek xale bi di dugg xale bi naka la ñëw ba ci bunt kër gis fas bi di egg mu ne kon fas bi duggagul sax kon sama sëriñ yéegagul kon xaaral yéeg bi mu yéegee dem ci demaat ci kër buur ba bi mu eggee buur bi jox ko malet xale bi ñëw xale bi ñëw donn alal gi donn daara ji kon loolu koo xamante ni fu mu dem day respecté ndigal mhm. day mhm. ay xeetu xisas la ay xeetu élément la ay mën mën xëj la yoo xam ne ma ngi dañ ko doon teg pour yar seen doom daa daawuñ ko bàyyi benn yoon benn yoon ba xale bi am ñaar fi at benn mhm. parce que islam ni nga ko tracé mooy ñett trois fois sept mu laa tuddee la règle des trois benn mhm. xadis yonent bi sallallahu mhm. sa doom de zéro à sept ans nga koy yar moom laa expliqué keroog te bépp jikko boo bëgg sa doom am ko rek fexeel ba bala moo am sept ans teel koo def ci moom allimhu sab'an de sept à quatorze ans nga jàngal ko kon mu am 14 ans. Mm-hmm. mu ne saaxibu sabaan mm-hmm. del waxtaan ak moom fo di di ànd ak moom

question bu rek ñu développé ko tuuti rek lan ngay conseiller euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew parce que tey dañoo gis temps yi moom crime bi bëri na trop trop. Mm-hmm. ba jaaxal nit ñi. lan nga leen di conseiller daal. waaw li ma leen conseillé surtout ci wàllu mm-hmm. crime mooy bu nit rayee dañuy mm-hmm. jëfandikoo yàlla sant parce que mooy li ma wax léegi gis nga yàlla moo ñu moom yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam moo ñu ëpp yërmande gis nga société man li ma jaaxal mooy gis nga réew. Mhm. dafa war a am lu ñu tuddee leadership. Mhm. dafa war a am. Mhm. mooy foo foo génn gis nga tey jii mënoon naa bàyyi ba deux heures du matin. ma génn fii dox dem Mbambara. dara duma ma daj parce que wóor na ma ni sama réew bàyyi nañ ko xel. waaye euh, crime yi parce que crime yi d'ailleurs ci kër yi la ci problème crise ci kër yi la waaye bu xasee ba kër gi rëcc. parce que doomu aadama ñetti éléments yi la bu njëkk bi way jur moo ko war a def. mooy xale bi. bi famille bi. beneen bi penc mi société bi. ñoo war a yar xam nga bu njëkkoon. dañ la daan yar ba ba war la ni la sa sa baay bii sa maanaam baay sa papa ji ci koñ bi sama xaytu sa xaytu papa bi ci koñ bi mhm. soo génnee boo defee lu ñaaw moom sañ na laa duma comme ni la sa papa duma dëgg la bu jëkkoon looloo am mhm. mais léegi bi ñu ko dindee nga dóor doomu jaamu ñu porté la plainte moo tax xale yi ñoom bu ñu bu leen neex def mhm. waaye yooyu yëpp su échecgee état bi moo taxaw yar mooy yàlla nee na bakkan bakkana koy faj gis nga bu fekkonte ne nit ki rey na mhm. ñu rey ko kon rey bi boo demee màkk ko doo fa dégg mhm. sàcc parce que wu xam nga Sénégal mhm. Sophie da ngay dégg ne diw man baax na man lay tooñ man jaral ma ma rey ko tëdd tëdd ci kaso waaw mais bu fekkonte ni ko rey ñu rey doo dégg mukk mu jaral na ma rey ko dee parce que bakkan dafa dund premier droit bi doomu aadama am mooy xifz loolu dafa wax ci ad daruratul xams juróom yi nga xam ne islam daf ko sàmmal nit ki mooy xifdu nafs bakkanu doomu aadama dafa cher moo tax yàlla ne man xatala nafsan fa ka annama xatala naasa jamian wa man axyaaha fa ka annama axya naasu jamian yàlla ne ne képp koo xam ne rey na benn bakkan mel na ne rey na àdduna bi yëpp parce que koo gis am na bu ñu ko bàyyi woon mu am soxna am doom mën na am ñaata nit ñooy judd ci moom ni ngi mel ni maam aadama li muy soog a wàcc ci kaw suuf bu ñu ko rayoon. Mhm. kon tey jii ko ñun du ñu am. dëgg la solution bi gis nga si loolu mooy signification bi. Mhm. mu ne benn boo ko rayee. Mhm. mel nañ ne rey na nit ki parce que bakkan boobu xool xame xale bu bi ngay rey. wala ki nga xamante ni ngi nekkoon ci di jàng. nekk scientifique. soo ko bàyyi woon mais ëllëg ci bi mën na créer loo xamante nañ ci jëriñoo. dafa doon loo xam ne lu metti la te dafay law di gis nañ temps bi ñu rayoon tey ñu tegaat ci keneen. parce que waaw mu ngi noonu parce que négociation bi am nga réew société société warul am négociation réew mooy àtte maanaam ku àtte bi dal sa kaw ak ku koo mënti doon mhm. dañ lay dañ jël àtte bi dal ko ak doomu koo mënti doon mhm. mais Sénégal mhm. da nekk doomu bu riche rey nit ñu négo négocier dugal la ci kaso bi ñaari at wala ñu guddi gi ñu def nangam négociation xam nga protocole Rebeuss protocole nangam tu tooñu ma kenn damay wax rek ay damay wax misaal bàyyi la nga génn kii baadoole bi sàcc ginaar ñaata nit ñoo sàcc ginaar nekk ci gi ay at donc yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko jàngale mm-hmm. dafa amoon benn jigéen bu nekkoon Medina bu tuddoon Fatimatu al Mahzumi mm-hmm. Fatimatu mi ngi bokkoon ci famille bu riche mm-hmm. famille Mahzumi famille bu riche la ñëpp naw leen Fatimatu moom nekkoon jigéen bu ñëpp bàyyi woon xel ñëpp respecté mais mu sàcc bi sàccee ñu xool ni dañoo war a dagg loxo bi ñu ne kii kilifa la waru ñoo dagg loxom nañuy négocier comme yonent bi sallallahu alayhi état la taxawoon te état bi état islamique état droit la taxawoon gars yi ne yonent bi ne ñemewuñ ngoo dem négocier pour ñu bàyyi xale bi ndax moom doomu bëqfal la bëqfal mooy njiit mhm. ñu ne léegi am na benn xale bu ñuy wax usaamatu ibnu zayd mhm. xale la bu yonent bi salaa salaam soppoon ku mhm. yonent bi bëggoon la parce que usaama dañ koo jàppoon jaam yonent bi adopté ko mu jige ay parents am ñëw bëgg koo jël si mu ne leen yéen a ma jur yéen sama ndey yéen sama baay fonk naa ne muy man yonent bi ma gënal ku ne te yonent bi boo gor la boo ko lebalee benn euh, mu fay lu fukk mm-hmm. yonent bi jël ko ne ne Usaama adopté ko bëgg ko mm-hmm. lool mm-hmm. ñu ne comme Usaama yonent bi da koo bëgg nañ yebal Usaama ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu dem ñaan intervention keroog Usaama bi mu ñëwee ñaan intervention ci yoonu Salaam yoonu Salaam dafa mer ba dama ci téere yi dañuy wax ne dafa mer ba keroog karaw gi dafa taxaw yi dar bi dafa gën a xonq mu dem ci mimbar bi xutba am na ñett mbir yoo xam ne wax nañ ko yonente bi mu mer ba dem xutba ñett temps bi duñ ko may mais benn bii ci la bokk bi mu demee xam nga mu wax. Mhm. dañuy yéen da ngeen may da ngeen di sàkku ram pour mhm. intervention. Mhm. négociation. ci àq boo xam ne droit boo xam ne yàlla moo ko santaane. mu ne xanaa xamoon ne li alagoon xeet yu njëkk ya moo doon lii bu riche bu bu riche wala politicien bu mag dafay lu bon. Mhm. ñu négo ñu bàyyi. Mhm. bu dee baadoola citoyen lambda bi ñu dal ci moom àtte. looloo alagoon yëpp mhm. mu ne mu waat mu ne wallaahi billaahi. law kaanat Fatima bint Muhammad saraxat. la xata la xataatu yadaha mu ne giiñ naa ko ni Fatima da sama doom bii. bu doon moom moo sàcc man Muhammad ma dagg loxoom. loolu nag amul ci réew mi donc fii ak jëluñu àtte ku rey ñu rey la. am mhm. ah, ñu ñu tudd ay droits de l'homme yooyu ah léegi yow waa léegi buñ buñ nee diw. Mhm. dafa rey ñu dañ ko war a rey ñu ne moom waruñu ko rey ndax dafa am droit. dafa am droit. Mhm. mais kee kee dee nag amul droit. dëgg mais dafa am droit. Mhm. léegi nag ñu naan léegi kon rey day gën a bëri mais nañ ko àtte nañ ko mhm. essayé senegal mhm. bu nit reyee ba ñu xam ne moo tey dootul amati. reyee ba ñu xam ni moo ko tey. ba def ba def parce que du rey rek ñu ñëw ñu ñëw rey ko. il faut ñu def enquête ba xam ni moo ko rey. ñu xool na mu reyee nit kooku nam ko reyee. noonu lañ koy reyee alxuraan nee na an na nafsa bil nafs. wal ayna bil ayni. wal anfa bil anfi. wal sinna bi sinn. wal juruha xisaasun. alxuraan nee na bakkan bakkan nee na ku ku ku damm ba ñu jàmm nañu xool bañ ba mu damm ñu damm ko ci yow ku bët bëtu jàmbur ñu nañu bëtt sa bët mhm. ku dagg nopp jàmbur nañu dagg sa nopp mhm. lu nit def rek mhm. doomu aadama te fekk yaa ko tey nañu xool loolu nga def ko mais loolu bu amoon sufietu si Sénégal kon ñëpp gis nga Sénégal gis nga tubaab bi boo demee ci tubaab waxuma sax tubaab mais Maroc ñun fa lañ jàngee mais gis nga boo demoon ci tey ji guddi looloo looloon dawal guddi guddi mos na ñooy jógee Fès di dem Rabat guddi gi ñu ne ñu ne baab yi ñu dawal ñu ne ko ñun dañoo yàkkamti dañoo bëgg a dem balaa 23 heures ndax dañuy tëj bunt yi gaawal ñu dem ba ci benn stop paa bi taxaw benn policier nekku fi. kenn nekku fa. Mhm. feu bi taxaw. Mhm. mu taxaw. Mhm. xam nga lu tax xam na ni maanaam ñoom gën ñoo yaru gën ñoo nekk tubaab bi gën ñoo yaru gën ñoo ngëm yàlla wante. fexe nañu xam nañ ni ku ku jéggi ku jéggi limites yi mhm. ñu dal sa kaw mhm. ginnaaw réew nag loolu rek moo mën a yar nit ki bu ko wóoree ni bu jéggee limites yi ñu dal ci kawam mhm. kon crime yi dina wàññi bu bu waa kër parents yaroon seen doom comme ni ñu ko jàngalee si tar bi bu ñu paree état bi def lu muy def Sénégal kon xool bu subaa aljana lay doon heure bu la neexee génn heure bu la neexee dugg loolu mooy warugar bi nga xam ne daal moom lay dénk état bi moo ñu dell ci charia xam Euh, sant la bu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. sant euh, waa Xewal TV yëpp. Mm-hmm. si occasion yi ñuy may. ngir ñun tamit ñu mën am participation bu ñu def si penc mi. ndax euh, mbir mi bu ñu toogoon suñuy néeg di ko wax. wala toog suñuy salle de di jàngale ci suñuy suñuy foofu rek lay yem. dëgg la bu ñu toogoon suñuy daara di jàngale foofu rek lay yem. mais lii buñ ko waxee àdduna bi ñëpp. Euh, léeg-léeg sa sama ay mbokk yu nekk ci bitim réew wala ca Maroc ñu doon mhm. jàng ñu jàngaloon ñoom ñu des fa mhm. bu ma leen partagé liens yi nga gis ni ñoom ñu ngi ñu envoyé di kontaan àdduna bépp di ko di ko di ko mhm. kii kon ñu sant leen gërëm leen sant say technicien ñi nga xam ni caméraman yi la sant la bu baax sant suñuy wayjur sant suñuy sëriñ salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ñu amaat contentement bu rëy ci dalal la fii ci xéewal TV waaye di nuyu équipe bu xéewal TV yépp di ñaanal sëriñ Bass Bamba xéewal di ko nuyu moom tam di ko ziar di nuyu sama caméraman yu baax yi ñoom ñaaña ak sëñ Bamba maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar macha allah kon émission baa ngi noonu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu